ma di ci toppale waa Géejawaay laa bokk ñi nga xam ne ñu ngi ci taal ak ci bàyyi ñi nga xam ne ñu ngi ci Géejawaay ak aussi ñu doon ko ci ci doon suñu bopp ci laaj yi nga xam ne wax dëgg yàlla lépp loo xam ne ñu ngi koy wax ko béy ci comme information ñoom ñoo koy def ak di leen gërëm leen sax di expliqué wu ko ci ci ci ci retard bi parce que il fallait que ñu toog xam ne lépp lépp pour yëpp nekk suñu place ñu doog a mën a démarrer li nga xam ne nag moom moo sabab tey mbir tax tey waa Géejawaay laa bokk toog bu ñu prononcé wu ci li xew dafa am scandale boo xam ne dafa am lu jëm ci wàllu pétrole ak gaz te ñu ciy tudd maire Alioune Sall bi nga xam ne mooy maire Géejawaay ñun nag Géejawaay laa bokk ak population Géejawaay en tant que des citoyens jàpp nañ ne suñu devoir la suñu rôle la ndax xam ne ak gaz bi nga xam ne ñu koy tudd. jàpp nañ ne alalu askan bi la te askan bi jàpp naa ne loolu état